par un groupuscule de magistrats, quelle que soit leur fonction. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays. Les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille, comme vous. Ils ont des carrières comme vous. Ils ont des parents comme vous. Ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison. que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. Revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. Respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honni à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi euh, ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29, 30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons, parce que nous l'avions dit, Désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais aujourd'hui, ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou abdiquerait face à, aux, aux velléités de Macky Sall Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités, si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le dixième des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très très longtemps. Nous, nous maintiendrons ce plan d'action et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall. Parce que aujourd'hui, il est omnibulé par son défilé du 4 avril. il va organiser un très grand défilé, le dernier qu'il organisera, puisque dans 11 mois, il sera plus président de la République s'il plaît à Dieu. Il veut faire une démonstration de force et en même temps intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis en armement, de toutes sortes, des tanks, des chars. En soi, ça ne nous pose pas de problème. La fête de la nation, c'est notre fête à tous. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois, il ruse Vous vous rappelez, lors de la crise du Covid, il avait invité toute la classe politique au Palais de la République. Et nous tous, on avait dit c'est la République qui a appelé. Nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition si on veut que cette opposition vous respecte. On a vu ce qui, ce qui, s'en est suivi. Vous vous rappelez lorsque il a appelé. Moi, j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne, je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore. Une bonne partie de l'opposition s'y était rendue. Mais on a vu où est-ce que ça a fini. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril, c'est la fête nationale. Donc nous, en, nous, devons tous, tous laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il il se, il se susurre même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril. Comment pouvez-vous comp comprendre que Macky Sall, emprisonne 300, plus de 300 personnes de nos jeunes, mettent d'autres sous bracelet électronique. D'autres ont été blessés par balle, d'autres ont été tués. Il n'y a même pas une enquête. À ce procureur, justement, je rappelle, où en est-il avec les enquêtes de la disparition de Didier Badi et de, euh, de, son, de, son, de son compère Où est-ce qu'il en est avec l'enquête sur l'assassinat de Maria Massagna Où est-ce qu'il en est sur l'enquête avec les jeunes exécutés froidement lors des manifestations de mars 2021, etc., etc. Et aujourd'hui, il vient faire une sortie malheureuse pour nous parler de d'empoisonnement ou de je ne sais forces spéciales. Et c'est pourquoi nous disons que nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous continuerons à nous battre et personne ne nous mettra à dos l'armée nationale. L'armée nationale, c'est notre armée, c'est notre fierté à tous. Ils vont sortir des arguments pour vous dire, oui, ils veulent le droit alors que c'est la de l'armée. Il n'en est absolument rien. Macky Sall fait des arrestations le 3, fait des emprisonnements le 3. Nous ne suspendrons pas notre combat le 3. Et donc j'en appelle à tout ce peuple, les 29, 30 et le 3 avril, nous allons des manifestations sur toute l'étendue du territoire national Et j'appelle les jeunes à se mobiliser davantage, à faire face à la stratégie de la terreur de Macky Parce qu'il pense qu'avec les emprisonnements, les arrestations préventives, il va vous faire peur. Nous ne sommes pas dans ce schéma Nous sommes conscients tous que nous nous battons pour l'avenir de nos fils et de nos petits et que rien ne nous fera reculer. Donc, mobilisation massive pour ces trois jours pour démontrer à la face du monde que la de Macky Sall ne passera et qu'en aucun cas, il mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi dellu si am ak jotaay ci waxtaan ci tolluwaay réew mi ak ci xew xew réew mi di leen gërëmati tey ñi ngi waxtaan ak yéen ànd ceeg mbégte gu rëy ndax ñu ngi sant yàlla am nañu tan bu baax a baax a baax suñu wér-gu-yaram am nañu peex gu rëy rëy ñu ciy gërëm ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ak seen taxawaay di ci gërëm yéen ñëpp ci seeni ñaan ak seen yitte yooyu lépp yàlla boole moo ñu may tey ñu mën a togg ak yéen euh, ci peex ak tal pour waxtaan ak yéen waxtaan gi nag ñoo ngi ko waroon waxtaanee jëmale rek ci woote ci taxawaay gi nit ñi war a am ci li ñuy dëgmal muy ëllëg gannaaw ëllëg ak bu soobee yàlla le trois avril ci li ñu woote nañu manifester fépp ci Sénégal ba Macky Sall xam ni sénégalais ànduñook moom manifeste gi nag ñépp ci war a ànd manifester bu ñu jàpp ni manifester yi affaire ndaw ñi kese la walla affaire Pastef kese la déedéet li Macky Sall bëgg bu ko amee kenn ku ne fi nga toog di nga toog matt matt sa baaraam bu cax la ñu xeex ñun ñëpp ba ànd ba yegg si fii ba Sénégalais yëpp am yaakaar ni lañ doon xaar boobu bëri gi fukki weer ak benn gën saa gudd moo ci des pour ñu mun cee commencé koo liggéey ba ñëpp gis àdduna yëpp gis ni senegal ay ndawam la keneen mën ak la ñeneen mën mën nañ ko loolu la Macky Sall bëgg fànq tey moo tax bu kenn jàpp ni mbirum usmaan Sonko la mbirum diw la wala diw Ousmane Sonko xaarewul dara ci politique salaire sax bëgguma ko ci politik yàlla mi ñu tiim ak weeru koor gi yéene gu ñu am ci réew mi rek bëgg a liggéeyal réew mi jaamu ci yàlla ba waa réew mi yëpp gis ni lañuy seenu feneen wala lañuy uti feneen ndeket yomboon nañu suñu biir réew loolu la Macky Sall ak li mu àndal benn benn yi mu àndal bëgg koo jaarale ci justice moom lañ ne tey dañ ko bëgg a fànq ndax dinañ ko nangu moo tax yow taximaan bi yow baykat bi yow étudiant bi yow menuisier métallique bi yow ouvrier bi yow yow yow kii yow mii di jigéen gi ñépp laa boole woow ñu bañ a sàggan ba Macky Sall noggatu ak nappaate gi mu nekkee foog ni mun na tiital Sénégalais yi ba kenn dootul ñeme yëngu loolu bu mu mucc bu mu am mucc li ko mën a dindi nag mooy askan wi bis bu xamee dooleem xam mën-mënam xam ni xajul ci kenn xajul ci Macky Sall xajul ci police am xajul ci gendarmerie am gis ngeen tubaab yi la ñoom amuñu ko tey ab francais bu toogoon liggéeyul sax am na lu muy fayeeku weer wu ne loo xam ne mun na ko permettre au moins mu fay location ak dund te tey ñoom ñi ngi génn di xeex suba ba ngoon jot ñuy xeex xeex yu métti parce que rek dafa am réforme bu ndaw bu ñu bëgg a jàllale pour ne léegi dootuñu retraité ak 62 ans waaye 64 ans la ñuy retraité waaye xanaa ñooñu dañoo war a gën a bëgg seen bopp bu ñu toogee dégg ay nit di essayé dugg ci xelu ndaw ñi naan leen ku fi dee yaa perte ak nangam nangam dama naan xeetu njaam googu moo taxoon tubaab gi noot suñuy maam xeetu wax jooju mooy nangu